di population Touba aussi je suis venu en retard mais toujours su ma ñëwee dañ may may privilège ñu arrêter pour moi voter bu pare maa ngi leen ciy gërëm ñoom ñëpp. alors gis naa les Sénégalais yi gépp nañ parce que je suis venu, mais maa ngi suivre depuis depuis xëdd de léegi gis naa les Sénégalais yi génn nañ fépp et puis ñëpp génn nañ bon de toutes les façons ni ma gisee nii changement dedans, parce que ça c'est une expression populaire.

waxna waxati répété yuuxu bokuma ci complexe yi nga xamné dañuy wax nan wéy affaire u diine affaire lu ma Touba bokul j'ai voté pour Serigne Touba j'ai voté pour ma communauté Touba et après j'ai voté encore pour la communauté nationale pour le peuple sénégalais mais n'oubliez pas que je suis dans la communauté mouride je suis non seulement dans la famille de Serigne Touba mais je suis un natif de Touba Touba bima ma dëkk di Serigne Touba te lu may def lu nekk jiital ko ci jiital naa ko ci tànn bi may tànn kii mu bëgg mu jiite réew mi jiital naa Serigne Touba ci tànn bi may tànn en tant que doomu Touba ki nga xam ne si yaakaar naa ne ëllëg dina war a defar Touba te ba ma juddoo ba léegi ku xam sëñ Modou Bousso nga xam ne ci loolu laa si def defaat naa ko tey. ma woo sama mbokki taalibe yëpp ci yar ak teggin dëkk bi dafa am borom te ñun ñëpp Serigne Touba lañ yaakaar te li yëfu àdduna rek bu ñu fàttee ne ku ciy def faatu ba dee bañ tër ci bàmmeel duñ ne kii militant la wala militant Amadou Ba dañ naan kii taalibe Serigne Touba la kon ndegam ku dee nag bëggoo ñu attur bi ci kenn ku du Serigne Touba kon waaye rikk bi ngay dund na nga am ngoru def ngir Serigne Touba def ngir yar def ngir teggin surtout bi sëñ Mountakha ne nañu nañu yar ànd ak dal kon Touba war na wane identité boobu yar ak teggin bi ñu leen xamee.